salaamaaleykum. waaleykum salaam. Euh, tonton Bouba ñu fekk la fii yaa ngi si waajtaay yi. waaw ñoo ko gisandoo ah mu ni moom affaire bi presque yemb na ko donc voilà on est on fin prêt pour casser casser la la comme on le dit. ngeen jëlee bi pare daal di koy indi fii ci Sénégal nekk tamit euh, ñi nga xamante ni yéen njëkk a tëgg ci Dakar Arena bi day xàllal yoon yi waaw mais bon je pense que loolu am na am na solo mooy euh, Dakar Arena aussi kii la patrimoine la et investissement bu diis la donc dañ ko war a utiliser bañ ko tëj rek te comme euh, en dehors du sport du basket ak yooyu war na mën a abriter eh, événement culturel bu mel ni je pense que c'est une bonne opportunité pour aussi vraiment utiliser. ñu gis tey ji Papa Thion euh, Papa Yu euh, ci dernier album bi mu def euh, benn way jagleel ko duppee ko ndox mi mais ñu gis chorégraphe bi image vidéo bi ak paroles yi mu nekk loo xamante ni c'est codé xam nañ ni yaa ngi ci sa ginnaaw yaa ngi ci ginnaaw production boobule inspiration. non clip bi moom c'est quelqu'un d'autre qui a réalisé c'est vrai que man maa produire bi mais. comme on le dit ah ndox moom c'est mieux de mettre l'accent sur euh, boo xam ne amul nan nan nan la àddina bi demee je pense que loolu moom mooy euh, particularité clip bi quoi mooy que à la fin la ñuy la ñuy xool gis dëggantaan nécessité ndox pour lépp pour la vie pour pour pour lépp lépp si àddina ndox moom boo amul dara du mën a nekk. si jamono ji nga xamante ni nañ ay gox ak ay yoo xam ne ñu ngi jooy ndox itamit. waaw ndox waaw non nañ ko utiliser bu baax rek parce que nee nañu fii ak 30 wala dara bu ñu deful attention ndox dina manqué donc nañu jël disposition yi sàmm àllam bi environnement dafa am solo parce que loolu moom mooy tax euh, vraiment yooyu yëpp. ay ndox ak yooyu yëpp mën a mën a bëri ba nit ñi mën ko jëfandikoo. Euh, si seen loolu itam lan moo leen may loolu kii la Youssou moom ku ko xam-xam ne depuis depuis euh, ses débuts ah. je ne pense pas am na thème boo xam ne ci ay woyam abordé wu ko quoi donc comme d'habitude ah fidèle à sa réputation à chaque fois rek day day day xool li nga xam ne société bi moom la moom lay dund ak moom la soxla mu bind si way si wax si pour que quand même attirer attention nit ñi. ci ay euh, sujet yu am solo. bi moo doon looy ñaax looy ñaax looy ñaax euh, jeune artiste compositeur yi ñi nga xamante ni ñoom ñooy bind. waaw mais non artistes yi c' est pas euh, obligatoire que artistes yi aussi bindal seen bopp ah. am na ñoo xam dañ leen di bindal ñuy way. waa mais loolu yëpp amul solo pour man li am solo mooy artiste déjà bu dee waykat nga dañ la wax pour nga mën a way ba pare avant ngay mën a bind sinon poète ngay nekk da ngay am talent ba pare di ci des nag c'est le thème nit ñi nag. thèmes yi ñuy élaborer ci ci chanson yi kenn mënu leen ko imposer c'est pas parce que nit ki day way chanson d'amour nga ne ko amuloo loo woy parce que l'amour est au début et à la fin de tout donc nañ bàyyi nit ñi aussi ñu bind li ñuy xalaat mais ñu génne ko woy ko woy bu neex ba nit ñi mën ko dégg seen nopp mu neex jërëjëf